di sant euh, ci teewaay bi ak ci yitte bi ngeen xam ne am ngeen ko ngir ñu bokkandoor fësal li nga xam ne Sénégal mi ngi koy def ci doxa Doha nag nekk euh, exposition boo xam ne ci wàllu gàncax ak garab ak yu ni mel la jëm réewu Qatar di ko amal ci diiru juróom benni weer si biir exposition yi nag dafa am kuréel goo xam ne moom moo koy saytu di wax lu ciy am ak nuñ koy defee ci saytu yooyu ak nuñ koy defee day am ay bés yoo xam ne réew mu ne bu ci bokk rek day am taxawaay boo ci am ak lang cay def ci fësal li nga am sa réew ci fësal li nga ci fësal li nga xam ak ci fësal aussi sa yitte li nga soxla bëgg ko defanteeg yeneen réew yi loolu nag si biir loolu yëpp day am bés boo xam ne moom la ñuy jël màndargale ko réew mi ñu koy wax journée nationale journée nationale nag juróom-ñetti fukk dëkk yi nga xam ne ñu ngi fii ci Doha ak organisation internationale yu mag kenn ku nekk sa bés su ñëwee da nga ciy wane la nga mën ak loo mënul la nga am ak loo amul maanaam da ngay bëgg mu mucc ayib ñun nag dimanche bi fukki fan ci weeru décembre mooy doon bésub Sénégal bésub Sénégal boobu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax gannaaw bi président Macky Sall ak gouvernement moom jàppee taxawee ci liggéey bi pour ñun ñu mën a ñëw Sénégal mën a ñëw bokk mën a nekk ci anam yoo xam ne kenn du ko maanaam piis walla kenn du ko xool bët boo xam ne mayul dayo Sénégal gannaaw ba ñu defee loolu yëpp mu ne danaa taxaw aussi ñëw jëmmaal leen ci bés bi nga xam ne moom lañ jagleel Sénégal dañuy daal di wax alhamdulilah ndax mbir mi day daal di wane rek ne réew mi Sénégal bëgg na positionné wu dans le concert de nations ndax tey euh, réew boo xam ne dafa bëgg bokk ci lépp lu ñuy décider décider ci àdduna bi dëgg la euh, di nga def sa diplomatie di nga def sa euh, yeneen politique mais politique bii nga xam ne dañ koy woowee diplomatie économique daf ci am solo kon Sénégal bu amee taxawaay ci loolu état bi jàppale ko ci dañu war a sant yàlla loolu benn la donc danañ ci def cérémonie officielle boo xam ne président day ñëw rek jëmmal ñu def hymne bi mu wax jëmmal lu gàtt lay doon waaye bëgg nañ ci amal tamit forum économique ndax ñun aussi loolu lañ ñu sant maanaam ci wàllu koom ñu xool li ñu am Sénégal naka lay mën a jëflanteeg li am fii ci Qatar mais jëflanteeg li am ci yeneen réew yi forum boobu nag dinañ ci ràññee secteur privé Sénégal bi ak bu Qatar bi waa APIX dina ñëw euh, directeur général Ablaye Balde mi ngi fi dana wax ci li ñu am comme investissement naka lañ ko war a defee euh, yan conditions euh, avantageuses la ñu teg mais également boss directeur Alou Seynou Euh, euh, kan mi ngi fi aussi pour wax ci projet ak programme yi nga xam ne état bi am na ko offre exportable bi aussi ñun waa ASEPEX am nañ ci taxawaay boo xam ne dinañ ko wane wax ko ndax euh, bu ñu seetloo li ñu gën a marqué fii ci Qatar mooy artisanat sénégalais bi moom dugg na ci marché Qatar ndax suñu artisan yi ñëw ak seen liggéey bu rafet bi ñu indi dafa tax ba waa Qatar yépp riir wutali leen bañ nañ ko ba léegi nit ñi ñi nga xam ne dañuy jëli ay bagages bitim réew bëri na ci ñoo xam ne dañ leen fi fekk ànd ak ñoom ci marché yi ànd ak ñoom ci place yi wax ak ñoom te waxtaan yooyu am na lu mu tàmbali jur kon loolu ASEPEX dina ci taxaw ndax loolu moo tax exposition yi war a am ñu perse marché bi même bu doon kenn rek moo ci am loolu pour ñun euh, li ñu bëggoon am nañ ko rawatina nag bi nga xamee ne da nga doon gis ku ñëw fekk ko teg sa table ak say bagage mu buuba ndóor lépp dem ça veut dire que lii am na fi wàll léegi dañ koy gën a formaliser beneen mbir bi également mooy ci yeneen wàllu floriculture ndax euh, exposition horticole la mu am suñu euh, espèce végétale yu bari yu ñu jëlee Dakar indi ko fi ànd si ak waa direction des eaux et forêts ak laboratoire botanique bu UCAD mais loolu aussi dafa nekk loo xam ne dafa attirer trop trop trop euh, ñuy nekk Qatar ñu bëgg nag produit boobu maanaam mbirum fleur mbirum ja gàncax parce que aménagement la Qatar c'est un pays désertique garab yi ñu fi teg bëri na jardin yoo xam ne boo fa demee tey garab yaa ngi dee mais jardin Sénégal moom garab yi taxaw na ñu ngi dund ñu ngi màgg ça veut que mën nañ fi adapté wu te gis nga looy def rek da nga ciy def li ci war am na ci yenn dëkk yoo xam ne dañu ñëw defar seen jardin dem ndekete garab du arrosé rek de du arrosé rek moo yor garab garab xam-xam la ndokk bi nga xamee ni ñun bi ñu ñëw dañu indi ingénieur boo xam ne daf fi toog 6 mois kooku guddi rek laa koy gis muy liggéey bu ñëpp wàccee 23h ba 8h du matin dafay toog di toppatoo jardin donc c'est-à-dire liggéey la boo xam ne dangay am xam-xam bi mën ko moom mi ngi fi te ba jàpp naa ne bokk na ci li tax jardin bi mel ni mu mel ñu ngi koy laaj expertise sénégalaise no lu ñu war a def naka lañ ko war a defee ñëppay ñëw di ko laaj donc yooyu yëpp. ay euh, kii la mbir yoo xam ne dinañu mën a ubbil yeneen perspective te vraiment côté boobu dinañ ci taxaw bu baax a baax pour que contact yi am ñu nuwe ko daal di xool nag nuñ ciy gën a mën a xuusee jàll si wàllu artisan yi moom ASEPEX dina liggéey parce que li ñu seetlu mooy ci wàllu booy taxaw di jaay na ngay mel li ngay jaay fi nga koy teg pour wane ko ak même ni nit ki ni ngay waxee moom yooyu yëpp jàpp nañ ne war na bokk ci mission ASEPEX ñu xool nuñ ciy gën a accompagner suñu artisans yi parce que ndeke du ci wàllu qualité liggéey bi rek loolu ñoom am nañ ko buñ ko amul woon liñ fi indi du dem mais xëy na ci présentation bi ci wax bi ci nangam ak nangam yooyu ASEPEX en tout cas dina ci lëkkaloo ndax ministre biram Faye war na fi ñëw pour ñu xool nuñ ci lëkkaloowee ba mën ci ànd liggéey bu baax a baax. am nga BIE dafa nekk bureau bu am solo BIE lépp lu jëm ci exposition moom moo koy doxal mais du doon maanaam exposition yëpp BIE exposition yu mag yi exposition universelle nga xam ne juróomi at yu nekk lay am exposition spécialisée nga xam ne ñaari at yu ne lay am fii ma taxaw di wax ak yéen ñi ngi préparer exposition Osaka en 2025 Japon la war a am ay at a ngi nii ñu ngi dox ci loolu 2030 euh, ci assemblée général bi mujj la ñu ne Arabie saoudite moo koy def donc te yooyu yëpp ay élection la te balaa ñu lay fal aussi day am critères yoo am pour ñu far la Haïti mi nga xam ne mooy seul réew ci Afrique boo xam ne euh, nee nañ def na élec mës na organiser exposition mi ngi ko def léegi mu mat téeméeri at en 2049 lay mat téeméeri at ñoom aussi taxaw nañu postuler pour en 2049 ñu mën a organiser euh, exposition bi te lu tax ñu wax ko léegi parce que exposition aussi day dafa cher pour nga def exposition pour nga participer budget bu conséquent la mais pour nga organiser ko dañuy gis ay dëkk yoo xam ne dañuy pare nañ pour investir ci plus de vingt cinq million de dollars exposition bi ñuy def euh, en deux mille vingt 27 fële ci euh, bi États-Unis postulé woon na ci teg vingt cinq million te gañewul donc ça veut que mandarga yi ak critères yi jafe na jafe boo xam ne ñun loolu boo ko bëggee def day nekk vision euh, nga nga nekk di ko xalaat sur une longue durée mais Afrique dafa war a am loolu parce que tey boo amee chance en tant que réew organiser exposition li ngay tabax ci réew mi day bari xoolal Qatar tey 80 hectares nga xam ne def nga aménagement urbain ndax dëkk bu ñëw defar jardin dëkk bu donc yooyu ay investissement la yoo xam ne dina laaj koom mais dina laaj perspective ak vision ak taxawaay taxawaay boobu nag foog nga am ko ci instance yi nga xam ne ñoom ñooy réglementé exposition te instance bi réglementé exposition yi mooy bureau international des expositions foofu nga xam ne dëgg la réewu Afrique yi doon nañ bokk ci bureau yi bokk ci commission yi mais ay adjoint rek lañ doon ne kon ci assemblée générale bi passé fexe nañu ba Sénégal jiite ak commission foog naa loolu lu am solo la muy commission information ak communication am na commission budget et administration commission Euh, règlement et cetera donc tey ñun bu ñu bokkee ci comme ñeenti commission yi lu am solo la bokk ci bureau bi mën a aussi di xam li xew ba nga xam ne dinañ seet fan la Sénégal di teg tànkam mais loolu nag bu ñu ko bëggee du état yi rek foog état yi ak peuple yi maanaam askan wi da ciy am solo ñëpp laxasaayu ànd ñu pousse tey yaakaar naa bu exposition amoon Sénégal dina baax ci ñun ndax am nañu espace ni ñu defee jam ñaajo ñu mën a xotti xëy na dem feneen ak yeneen yu mu laaj yooyu yëpp nag planification la boo xam ne ñëpp a ci war a jàpp en tout cas ñi ngi ci tànk positionné euh, suñu réew ci instance internationale yooyu parce que même fii ci Doha fal nañ fii li ñuy wax le steering committee steering committee bi mooy commissaire généraux yi am ci exposition bi bu ñu dajaloo dañuy am kuréel am bureau bureau bi BIE moo koy samp BIE ak commissariat général ak organisateur yu dëkk bi bërki démba je crois lañu ko def yàlla dogal ñu jël ma tapp tab ma ci bopp bureau boobu defe naa loolu aussi day jëmmal taxawaayu Sénégal mais surtout day jëmmal fi ASEPEX bëgg teg réew mi ci wàllu participation dans des organisations internationales parce que aussi président Macky Sall loolu lañu jàngal nit ki da ngay gëm sa bopp woolu sa bopp taxaw taxaw foo xam ne réew ma dina ci mën a gis boppam ci loolu la ñu ne mu jàppale ñu ci nag muy moom muy premier ministre Amadou Ba bi nga xam ne même laata may ñëw fii wax nañ ci Doha kon dañuy jàpp ne euh, bu ci ñëpp jàppee comme ni ngeen ci jàppee yéen parce que yéen tamit da ngeen mobiliser yéen presse bi kenn ku nekk def kéem kàttanam pour ñu mën a àndandoor ci journée boobu euh, dañuy ñaan rek sunu borom mottali li ci des téeméeru artisan dinañ ñëw ci ci ci Doha téeméer ak ñaar fukk la ñu waxoon mais ñi ngi hésité parce que élection bi tamit nekk na loo xam ne balaa nga naan naam ne fa te kenn ku ne war na ci joxe xalaatam moo tax ñu ngi xool nu ñuy defee loolu mais téeméeri artisan yi ñu tànn te nga xam ne boobu ba léegi li ñu jot ci ñu bëgg ñëw ak ñu mer sax du ñàkk parce que ñëppay bëgg ñëw bëri na bëri boo xam ne ca njëlbeen ba ba ñuy tànn dañu ne ñun waa ASEPEX du ñu tànn donte critères yi mu ngi fi ñi nga xam ne ñoo ne ci métier bi ñoo ñu gën a xam donc ñu delloo tànn bi chambre de métier tey chambre de métier yi ñoom ñoo tànnal seen bopp yónnee ñu seeni liste ñi ngi bind euh, weer bu jot ñaar fukk ñëw am na ñaar fukk ñu njëkk ñëw euh, amaat na aussi yeneen ñaar fukk yu ñëw ci biir dina amaat yeneen cohorte yuy ñëw ba fii exposition bi mu jeex bi ñuy ñëw aussi président teg leen ci condition yu mucc ay parce que dafa ne nañ leen jël en charge muy ci wàllu bagage muy ci wàllu stand yi leen di jox muy ci wàllu transport bi yooyu yëpp ñu daal di koy boole dimbale leen ko pour nu mu gën a mën a oyofee maintenant nag du ñàkk fokk après ñu xoolaat yenn mbir yi boo gisee même foire bi nii FIDAK foire de Dakar ASEPEX da ciy participer chaque jour organiser journée Sénégal mais même sélection bi dañ ko delloowaat chambre de métier yi ak chambre de commerce yi dëgg la nit ñaa ngi bind lu bëri di ñëw ASEPEX mais dama jàpp ne liggéey kaca ne di yëngatu moo la ko gën a xam moo tax ñu bàyyeewaat leen tànn boobu bëgg nañu ànd ak ñeent fukki entreprise yoo xam ne dinañ représenter Sénégal ci euh, exposition FIDAK boobu foire de Dakar ci ma ciy remercier le directeur général Saliou Keita ndax yombalal nañu ko te mi ngi ciy def aussi liggéey bu am solo li wóor daal mooy ASEPEX dina taxaw ci wetu bépp ministère boo xam ne li ñuy def impacté na ko parce que ñun structure transversale lañ yorewuñu secteurs yi maanaam su ñu demee artisanat ñun yorewuñu secteur artisanat mais li ñuy yor mooy jumtuwaay boo xam ne secteur bi bu ci sukkandiku mën na gën a defar liggéeyam te noonu ñu ko amee ci artisanat lañ ko amee ci pêche am ko ci agriculture am ko ci bépp secteur kon ASEPEX daf fi nekk pour que ministère du commerce bi nga xam ne ci la bokk te ministre Abdou Karim Fofana aussi ñëw jàpp ci liggéey bi ñuy def jàpp bu am solo bés du wees te wootewul pour xam ci lan lañ nekk loolu aussi lu jara fësal la foofu danañ ñi fa ne danañ sukkandiku ci ñun mais yeneen ministère yëpp dinañu aussi nekk seen disposition pour que plateau bi nga xam ne am nañ ko te muy wàllu jëmmaal kenn ku ne acteur yi aaju ci yow lu muy def danañ ko def ngir taxawaayu Sénégal gën a nekk lu mucc ay ci àdduna bi